diggante 2010 ba 2017 jigéen yi ñàkk seen i bakkan ba ñuy wasin daanaka lim bi wàññi na bu baax a baax boo ko xayma ci lu tolloo ci téeméeri junni ci ay naissance ci atum 2010 lu toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak ñaar ñoo doon ñàkk seen i bakkan ci atum 2017 mu toll ci ñaar téeméer ak fanweer ak juróom-benn ñoo ñàkk seen bakkan ci téeméeri junni yoo jël li jëm ci xale yi tamit ñàkk seen bakkan ci wasin daa nekk limbi boo ko xayma wàññi na bu baax baax ndax ci téeméer boo jël ci atum 2010 dix juróom-ñaari fukk ak ñaar ñoo doon ñàkk seen bakkan ci deux mille dix-neuf mu toll ci fanweer ak juróom-ñaar ci téeméer boo jël ñoo ñàkk seeni i bakkan lim bi wàññiku lool waaye bu ñu sukkandikoo ci organisation yi nekk ci société civile lim boobu des na ngir ñi atteindre lii di objectif de développement durable. ñun nag dañ leen féetale wàllu jigéen ñi ñu war nag wax jigéen ñi waxtaan ak ñoom ku ci war lor fi nga war a jaar. ni nga ko war a defee xam nañ ne yombul nag am na ci ñoo xam ne fi ñu dëkk ak fa ñu war a passé visite day sore waaye ba tey ñu wax xamal leen ne passé visite lu normal euh, di fexe encore waxtaan ak ñoom ba ñu gën a yeewu ci ne ëmb boo xasee def daanaka da ngay war di surveiller sa bopp. li jëm ci xeexu paludisme bokk na ci li leen tax a jóg société civile yi jàpp ni war nañ mobiliser fii ci Sénégal ay ressources ngir xeex paludisme ci miim réew mii am na déclaration bu ñu fi war a génn. waxande bi ne jigéen ñi wax nañ ne bëgg nañu def benn synthèse ci li ñuy def nii ci santé maternelle infante juvénile ak PALI def déclaration boo xam ne autorités yu bees yi dañuy fexe ba ñu jot ci à travers 3CAP santé wane ne lii mooy suñu priorité ci santé dañu bëgg bu ñuy seet ak làmbatu fan la ñu war a jëm ñu boole ko ci. forum bi nekk ci coordination association des femmes d' Afrique de l'Ouest bokk ci kuréel boo xamante daal ñu tuddee ko cadre de concertation d' action de plaidoyer eh, ci wàllum paj mi lëkkaloo ak USAID ñoom nag fas yéene nañ amal ay waxtaan jëmale ko ci ay pexe yoo xamante ne war nañ ko amal ngir dimbale jigéen yi ba ñuy won ne lorn waaye tamit ay décisions yi ama am solo dinañ ko jébbal autorités yi